ah da ngay ñëw si dëkk ñun la il faut nga def fi 3 ans di soog a am kay mais mais xam nga lii neexul ñun bëgg ñun ñu toroxale nii. baax na gaaw ñu ñëw ñëwee ci kaw ne la saa yi dépasse ba mën na dépasse ba war a dugg de ba mën na. lii neex na lii la neexul moom wax dëgg yàlla neexul de. lii la ñuy dund de lii la ñuy dund. lii la ñuy dund de. lekk moom duñ lekk de. te Sénégal xamuñu loolu. You claro. it. no Ahí va. Sénégal Info TV la chaîne du mouridisme seen bi bépp xibaar si réew mi ak bitim réew yow mi am lu bëgg yëgle moo xam njëntal wala màggal wala cant wala lu mën a doon wala ngay jaay bagage lu mën nga dugg si woo ñu 76 296 09 92 wala woo ñu 76 265 54 Sénégal Info TV mi ngi lëkkaloo service bi di DSTV 80 DSTV 80 Sénégal Info TV ñu di defal mu tas mu ci ay Sénégal Info TV la chaîne du mouridisme إله ما أبصر السفر فلاهي بكون